xam nga démb dañ bi ñu ñëwé dañu heure ay vers 15 heures yoy dañu fekk ñuy añ bi ñu toggé ba mu yag ñu tourné gis benn bis bu jëgé côté balé di di jël feu ah ñu nit aussi ñu tiit daal di daw ñeu songalé bi ñu ñëwé pour secourir leen bis bi yëpp jël flamme côté yëpp nak nit ñi nekk ci biir di yuuxu ñi di jaar ci fenêtre yi ñi di jaar ci porte yi di tëdd ci di daw di daanu ci teul bi bo ñun aussi bobu manu ñu leen sauver ci dara té bobu dañu dawon pour secourir leen ndax boobu amuñu ndox amuñu suuf amuñu ay insecteurs ya nga xam ne mën nañu jappalé pour ñu fay ki bi civil ma suñu xel nekk ci sapeur pompier yi ñu wo 18 18 après ñom it aussi ñu daw ñew yi ñu ñewé bis bi mi ngi daw di ram di ram ba yexi ba fi mo jaakar lol mo arrêté fi dañ ko kale sax mo arrêté fi ah sapeur pompier ñëw fay affaire dindi écarté nit ñi ñoom nekk ci seen liggéey bi ñu toogee ba mu yàgg ñu ñëw fekk mi fii ma taxaw ñu ni ma saaku lañu bëgg nga am a mani ko ban saaku mu ma saaku bu mag di jëkkati saaku ngooñ yi may jaay ñaar daal di ko ci jox daal ko waa ñaata ah, ah, dafa am ñu ci ni ñaar dee na no am na kenn ka nga xamni ne ku jigen fi la mel meer ba mu daano ci suuf fi la doon ram jëm ci jardin bi kenen ki mom gannaaw goy mo xolleeku mak la ku góor momit it aussi lakk ñooñu nak sapeur pompier jëk ñew dañu ñew ñooñu la ñu sauvé yóbbu sapeur bi garé fi mom de xaar ñi nga xamni mom moy ñi nga xamni dess des nañ ci ñatt seen bakkan ci biir calciné wu aussi wa fi ci euh, ñi génnee ci bi ñen ñi ñëpp dañu tiit ñi ngi taxaw. doon seetaan am na kenn ku góor sax ka nga xam ne man dama ko doon laaj naan ko affaire yu ni mu demee mu ni moom daal dañu sànni ay affaire ci biir bis bi bis bi tàkk molotov bis bi tàkk ñoom ci seen jëm bopp ñu dugg ci biir di caaj nit ñi waaw ba euh, safara si ëppee doole nag ñooñu ci la ñu daw génn waaw. Euh, li ma fekkee fii daal mooy buy oto bi di tàkk ak gaay bu ñuy génni quoi man loolu moo laa fi fekk quoi. buus bi daal ku ne daal boppam la doon taal instant yooyu ndax bi bis bi bu doon ta bu muy tàkk ku ne boppam la doon taal instant yooyu ndax mënuñoo fay bis bi ñun support rek moo mujjee ñëw moo mujjee ñëw ne di di fay bis bi. mais léegi ñaari nit ñaari nit daal nañ mujjee gis ci biir te chauffeur bi tamit waxoon na ne ñaari ñetti nit ñoo taxawoon ñetti nit ñoo taxawoon oto bi dafa feesoon ba ñetti nit kese taxaw te te waaw ñoo taxawoon ci bunt bi quoi oto bi dafa feesoon waaw waaw bi ñu ñi gisee génne man ñaari nit gis naa leen ñaar ñetti nit laa bugg a wax sax euh, chauffeur bi apprenti bi ak benn ak bu làkk mais benn maire bi moom tànk bi la tànk bi fii moo làkk fale la taw fale la toogoon chauffeur bi lu mu wax bari woon na ay nit ñaari nit daal laa gis ñu dee te ñoon dañoo xom ñooni moom dañoo dee ba làkk lépp non non gisuñu lu bëri man gisuma lu bëri de man waaw fii fii la waaw arrêt bi fee la arrêt bi fee la mais bis bi bis bi sobor bi daa daa wàcc sobor daa wàcc bis bi moo indi boppam fii oto waaw man gis naa gis naa foofu maire bi ak kii ku doon enquête kii bi ak uh, chauffeur bi mboolo mi ci uh, mboolo bi bari waaw mbali mi bi bari woon na trop bari bari woon na trop non non noonu dañoo fekkee dañoo fekkee kii bi rek ñu ñëw fii ko waaw di seetaan. Euh, non non man da ñaari nit laa gis. ñaari nit ñu dee laa gis. waaw te chauffeur te sapeur sapeur ñoo ko génnee. sapeur ñoo ko génnee. ndax dañoo fay oto bi ba pare sax doog koo génnee. ba pare doog koo génnee waaw. ankañ xanaa xanaa xanaa ñi sofoor bi ak kii bi ak euh, benn maire bi ma lay wax nii waaw ñooñu ñoo blessé quoi. mais démb li fi xew moom dafa doy waar démb li fi xew man maa ngi door a gis si Sénégal arrêté car door ay lacrymogène xam nga lacrymogène la xam nga ay grenade nit nekk si biir ëllëg nga wàccee leen mais wàccee woo leen nga taal ay bomb lacrymogène la mu tàkk car bi tàkk nit ñi yuuxu ñuy jaar si fenêtre bi. ñu jaar ci porte bi chauffeur bi dal mom ci porte bi la jaar xeyna nak am ñen ñu jaar fofu mais man limay gis taxaw fi di di xool genn gi ci fenêtre bi la jaar toj weer jaar ci fenêtre bi teppelu bu car jëgë won fa wala super wala bërle sen kaw la ñuy jaar te lol danger la l'essentiel dal li fi xew démb dal musuma ko gis man ñaaw na trop man kay naw yi man dama jaaxal dama dama jaaxal dal démb dama jaaxal démb dama taxaw du yuuxu ba ba kaar bi tak ba jeex amuñu fi leen génne sapeur avant ñu ñëw fekk ne kaar ba jeex na gendarmerie la même chose avant intervention di am fekk gaay yi dem nañ seen yoon yàgg ñu toog ba 2 heures de temps sapeur doog a ñëw c'est trop tard c'est trop tard hein lak ba jeex ngay dégg ay nit yu yuuxu ñu tak ba jeex du yuuxu ba dégg do yuuxu dafa metti dafa metti ci réew ni Sénégal. waaw maa woon bi. yaa woon si tataa bi waaw maa woon tataa bi. Euh, pas tellement. feesul woon ñaata ma ko mënu nag. Ah. waaw pourtant dix personnes. waaw ëpp na ko. ëpp na dix ci ginnaaw laa toogee woon quoi si si ginnaaw. ok amee verre bi ci ginnaaw laa jaaree quoi wàcc. verre bi ci moom jotuma leen a gis. ndax fi ma toogoon la moo waaw. dafa amoon ay jigéen. waaw no gisumu jigéen. mais yooyu wax dëgg yàlla ndax man bi affaire yi tàkk moom ci la ñuy profité pour génn tataa bi. mooy non tataa yi yeneen tataa la mooy ci gin euh, yi nga xam ne day am coussin ci ginnaaw. waaw waaw yi muy kawe kaw. Ah, yooyu la waaw yooyu la. léegi maanaam si kanam am na ñu fa toog. ci kanam am na ñu fa toog am nañu fa waaw amoon nañu fa am na tamit ay quelques yu taxawoon quoi. ay quelques man moom dëgg yàlla xaw ma ñaari nit la dëgg yàlla.